Ah, jërë ngeen jëf mbokki internet yi 313 digital ñu leen nuyu baax ñu amaan ba ci dellu sa génn ci seen actu du jour comme ni ñu koy ah, defee eh, bisu tabaski du tere itam ñu fexe naka lañ leen di toppale li nga xam ni moom mooy ah, xibaar bu leen fàtte ni nag kii di juge bi daal di nay rendre nag sa décision suite à l' affaire opposant kii di Ousmane Sonko ak ki nga xam ni moom mooy Adji Raby Sarr dossier bi doxol ci seen diggante tamu aju ci wàllu viol peine yi nga xam ni nag kon prononcé nañu ko ci à l'encontre euh, de Ndeye Khady Ndiaye ak ki nga xam ni moom mooy euh, kii Sonko pour le moment nag dañu koy rek daal di exécuté yéen ñi nga xam ni kon yéen a ñuy euh, topp maanaam ci gàttal euh, kii di Ousmane Sonko maanaam waxtu ci nekk ak ki nga xam ni moom mooy Ndeye Khady Ndiaye waxtu wu ci nekk euh, mënuñu leen daal di arrêté mais nag am na mbir bu ci am ndax euh, li nga xam ni rek euh, moom mooy juge bi dafa war a enregistré au niveau du parquet loole kon la rek la waa la daal di war a def loole nag bu pare kii di procureur bi dafa war a délivrer kon un mandat d'incarcération qui sera remis à une unité de police ou de gendarmerie balaa ñuy jublu ci arrestation ki nga xam ni moom mooy Ousmane wala sax ki nga xam ni moom moy Ndeye Khady Ndiaye ci fàttali nag moom mii di Ousmane Sonko ñu ngi ko daal di condamné lu tollu ci ñaari ati prison ferme yoo xam ni ah, da ko war a daal di eh, tëdd gannaaw ba ñu disqualifié lu jëm ci wàllum viol répétitif ak lu jëm ci menace de mort ña ngi ko nag ah, toppee lu jëm ci wàllum corruption de la jeunesse maanaam guerre ay ndaw gune yoo xam ni xamaguñu dara kantaan ak kii di Ndeye Khady Ndiaye moom nag ah, den poursuite pour général yi nga xam ni moom mooy sa peine a cause d'une condamnation euh, pour incitation à la débauche loolee kon la ko daal di euh, toppee moom Sonko a été acquitté des faits de menace de mort et Ndeye Khady Ndiaye Ndeye Khady Ndiaye de complicité de euh, viol mi ngi noonu pour ce qui est de l'action publique ou civile au moins Ousmane Sonko ak ki nga xam ne mooy Ndeye Khady Ndiaye dañu war a fay en tout cas lu toll ci millions de francs CFA ki nga xam ni moom aji rabi saara kon euh, noonee kon rek la ko euh, daal di juge bi euh, xamle en tout cas moom Ndeye Khady Ndiaye nag am na lu toll ci vingt huit jours à compter de la décision pour nag def li nga xam ne moom mooy appel kii di Ousmane Sonko nag jugé par contumace en tout cas il faudra de vrai donc ingéniosité juridique de la part de ses avocats euh, pour que la caducité du présent euh, jugement soit prononcée enfin kon euh, moom Ousmane Sonko que nouveau jugement soit jugement soit déclaré loole nag à partir de ce moment moom Ousmane Sonko c'est aux noir yi nga xam ni ñoom ñoo war a def li nga xamante ni si ni moom mooy seen liggéey kon xibaar gi mi ngi noonu Ousmane Sonko kon fi mu ne nii ci gannaaw si jullit tabaski gi en tout cas nekk na mbir boo xam ni nekkoon na xibaar goo xam ni daal di nay rek euh, daal di euh, daanu euh, dox ci diggam ak ki nga xam ni moom mooy Adji Raby Sarr en tout cas li nga xam ni moom la sénégalais yi doon euh, ruum ruume ba ñu ne nag subal tabaski kii di président de la République Macky Sall kon gracier na lu toll ci ay euh, téeméeri euh, nit yoo xam ne dañu leen a tëjoon ci kaso ñooñu nag seen i pen ci lu jëm ci wàllu crime ak des délits ci boobu la jamono nag en tout cas ay centaine de manifestants yoo xam ne ñi ngi ci kaso yi moom président de la République waxul loo xam ni dafa jëm ci ñoom mi ngi noonu mbokki internet du 313 digital kon xibaar gi mi ngi noonu en cas danañu wéy ji ko toppal mën ngeen connecté ci 313 digital euh, jouru tabaski gi euh, ba lépp ci am incha allah euh, danañu leen ko indil su defee ñu daal di koy faram fàcce ci anam gu mu gën a moom mi di Pape Alé Niang nag maa ngay rassuré en bu baax a baax gannaaw ba juge bi daal di sa décision moom nag nee na moom Pape Alé Niang pour le moment nii nii mënuñu arrêté nga xam ni moom Ousmane Sonko parce que il faut que le jugement soit naan euh, qui se trouve au parquet pour exécution noonee la ko waxee woon en tout cas ci suñu biir développement moom Pape Alé Niang bi xam ne kon dellusiwaat na ci euh, mbir boobu nee na nag loolee kese moom moo war a tax kii di procureur bi waajal nag une réquisition d'incarcération remise à une unité de police ou de gendarmerie pour exécution loolee la Pape Alé Niang euh, daa di bind ca xëtu page Facebook am euh, fa ñu koy toppee kon xibaar yi mi ngi noonu mbokki interne 313 digital moom mi la di Abass Fall nag moom ma ngay xam la ni en tout cas bu fekkente ni dañu bëgg a xaar ba nit ñi di tabaski ba Dakar vite du ñu arrêté ngir Ousmane Sonko loolee dafay wàññi rek ni état bi dafa faible faible bu doy waar mais nag dans ñoom pare nañu pour défendre en tout cas euh, li nga xamante ni si bi moom moo di seen ay euh, projet noonu mbokki internautes a euh, la ñu jaajëfal leen ñu en attendant ñu daal di dem traité waat ni xibaar indi leen ko ci 313 digital laata loolu ngeen wéy abonné ba si itam ci cloche de notification bi ngir ngeen mën a wéy di continuer jol suñu ay programme ñu ngi leen di baalu àq di leen baalu àq di leen wax tabaski mubaarak jërë ngeen jëf